bokki jullit yi ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xam ne nii moonu amal ngir ñu jaamu ko mu yónni ci ñun ay yonente ngir ñu gindi ñu waaye ak yërmande ju tukkee ci moom borom bi subhanahu wa ta'ala ñu julli ca ndawam la ka nga xam ne nii moo tëj mboole seem ñi yàlla solo tey njiital mboole seem ñi yàlla yónni muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu julli ba tey yàlla gën a dolli leer liggéeykatam ba cheikhuna cheikhul xadim ba ca bis ba nga xam ne ni mooy bisab fayantoo ba mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu leen ndokkalee ci weeru koor wi te di leen ci balu àq tey ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu nungul ñu sunuy koor nam ko bëggee te jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc moom mi wax ne koor maa ko moom te maa koy fayal sama bopp li mu ci digge yàlla nañu ko yàlla defal rawatina ci bis bu tedd bii muy bisu ajjuma nekk ci biir koor gi li mu ci digge moom borom bi subhanahu wa ta'ala xam na ko yàlla na nu ko yàlla defal ak mboole seen jullit yépp mbokki jullit yi ponki lislaam dañ dafa war ci jullit bu nekk ak bu jigéen bu nekk mu xàmmee ko fas ko jóg ci di ko joxe diirub bi mu nekkee ndaw ngir mu tàmm ko ca joxe ga bis bu nekkee mag muy bu nekkee mu kallaf lan mooy mu kallaf nag mooy ku ñu togg jëf ci shariatul islaamiya mooy ki nga xam ne nii mat na mooy majeur na ba pare nekk ku amum xel woote bi diine lislaam ak si ci moom bu boobaa kooko mooy mu kallaf waaye atteb lislaam dana rot ci kan dina rot ci ki nga xam ne nii day amul am xel ki nga xam ne nii dafa nekk ku dese comme ni muy rote it ki nga xam ne nii ku nu forcé la ak ku ca lot ku nu forcé mooy koo xam ne nii dañ laa forcé def loola lu yàlla bañ ba nga def ko kooko moom atteb sariya wàcc na ci moom loolu dis ko ci topp leen ndax dafa am ci daawa islamiya ñoo xam ne nii bi leen noon yi jàppee dañ leen a jàpp di leen sonal di leen dóor di leen dóor ba wax loo leen yonente bi wax ju ñaaw ñu wax ko bañ dikkee di ko wax yonente bi ne ko yonent yàlla nee na yëkkati naa ci sama xalika ci ñett kiy nelaw te yeewul ak ki parte ak koo xam ne nii dañ koo forcé mbokki jullit yi ak sharia islamiya nag lu yomb la mën nañ ko wàññi ci baaram te yàlla da koo aj ci jëfi mu kallaf yooyu muy juróomi ponk muy waajib li la war war ci baatu wolof rek buñ ko seetee day xam ne kon loolu moo nu féete kaw xaraamun liñ la araamal mooy li ñu bëgg nga bàyyi ko manduubun li ñu sopp ci yow makruuhun li nu sib mubaahun li dagal bu ñu nee li waajib mooy loo xam ne ni mooy farata yàlla moo ko defal ci yow mënut laa wàcc feeg yaa ngi ci xaydul xayaat wa imaa leen at yenn waxan dafa dal ci yow xaraam mooy lu yàlla araamal comme sàngara ak yeneen ak yeneen yooyu yépp mën du mooy lu nu sopp li nu sopp boo ko defee xayrun boo ko defutit boo ko defee yàlla fay la boo ko bàyyi yàlla du la mbugal makruh mooy lu nu sib lu nu sibit maanaam mooy loo xam ne nii maanaam lislaam bëgg ko mais araamu mu baaxul mooy lu dagan li dagan ci yow comme li nga xam ne ni dagan na comme ñun fi mu ne añ bëccëg daganan nañ ci ñun waaye fi mu ne añ bëccëg dafa araam ci ñun kasaalika ci lekk yeeg naan yi yépp dafa am yu dagan am yu araam kon juróom yooyu dafa yeemo takk xale bi ci ci ngoneem ci la ñu ko war a teel a xàmmee lan mooy li dagan ak lan mooy li araam ak lan mooy li sopp ci moom ak lan mooy li nu bañ yooyu bu ko teelee xale bi teelee xam ci ngoneem ñu naa ko julli de na nga xam ne maanaam yàlla moo ko farataal ci yow muy dem noonu ñu di ko wax loolu bu dee ni masalan ak lekk la ñu ne ko lekk gii dafa dagan ñu ne ko mooy dagan mu ne mooy li yàlla may nga lekk ko masalan ñu ne ko sàngara naan nga dafa xaraam yàlla dala koo tere mu teel koo xam ci ngone du jamono soppeeku soppeeku boo ko ci yaree bu màggee kenn mënatu ko ca dugal mbokk jullit kon ñu jéem a góorgóorlu bu baax lu nu man lu ne ñu taxaw ko ci loolu borom bi subhanahu wa taala digal ñu waaye ñu bàyyi lépp lu ñu tere ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne ne lépp lu ma leen digal na ngeen ca def lu ma leen lu ngeen man waaye lépp lu ma leen tere na ngeen ko bàyyi ndax ñu nekk jullit boo xam ne nii suñu ngëm yàlla day dëgër ndax weeru koor ku ci nekk rek buñ la waxee gëm yàlla rek xam nga ne gëm yàlla nekk na ci yow ndax ku bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi lépp loo xam ne nii def ngir borom bi subhanahu wa taala xam nga ne kooku ku gëm yàlla la waaye gëm yàlla bu gën a dëgër ci bopp suñu bopp lañ gën a wax ñu dëggut ak lislaam lislaam nag mooy li feeñ ci biti suñu lislaam ni ñu amee gëm yàlla bay woor suñu lislaam suñu biti mu rafetaat lislaam mooy yére yi nga xam ne ni moom la ñuy solo diine bu ko defee borom bi subhanahu wa taala fay ñu fay gu rafet mbokki jullit yàlla day benn képp la du ñaar ci ay jëfam ci jëmmam ci ay meloom amul kenn ku ko yem moo taxal Cheikhul Xadim nee ne wa waxidun ma in lahu min saanin walam yasal jalla azimu zaani sëriñ tubaa nee na yàlla kenn képp la du ñaar ci meloom ci jëfam lépp lu mu doon kenn la ca doon ñu seere it ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndawam lu lu dëgg lu mu wax yàllaa ko ko digal ndax jàng nañ ne wa ma yantiqu anil hawa lépp lu mu wax rek yàllaa ko ko digal loolu moo waral mboole seen jullit yi ñépp ñi ngi àndaat di woor loolu ñu sante ko tawfiq ak suñu borom ndax mbooleteem li ñu doon ñaan ñépp yàlla tàppe xolu jullit yi ñu nekk benn yàlla def na ko aalamul islam yi yépp ñoo ànd wooroon ko loolu yaakaar naa ku yëg diine ci sa xol ku yëg ngor ku yëg lu baax yaakaar naa ne loolu sa xol sedd na ci yàlla na ko yàlla gën a yokk mbokk jullit yi loolu dara mënu koo gën a yokk lu dul juróom ñii ñu leen waxal ñu sax ci bu nu ci saxee daal jàmm doo ngay am ci réew waaye saa suñu ci noppee jaar suñ ci noppee jaar rek féewaloo te bu nu féewaloo mu andil ñu leneen wala yaasu billah mbokki jullit yi nañu xam ne weeru koor day weeru promotion la amul benn waxtu boo ci xam ne nii jaam bi dina wéet ak boroomam ñaan ko te boroomam du ko noonu kon képp ku ci nekk lépp loo bëgg na nga koy ñaan waaye lépp lu la rëcce nit na nga ko jégalu borom bi subhanahu wa taala mën na lu ko jégal ndax ramadan la mooy weer wi lakk ay bakkaar yàlla dafa farataal ci ñun ay jaamu yàlla farataay yooyu mu def noonu ci ñun koor yi du sonal ñu taxut de moom ñu taxut de waaye lan moo tax mu taklif ko ci ñun mooy suñuy njariñ ak suñuy yërmaande te it dafa wax ne lépp lu ma la teg lu yomb la ci yow teguma la lenn lenn lu jafe loolu nag buñ ko defee mooy ñi ngi topp yàlla ñi ngi ko jaamu topp yàlla jaamu yàlla nag ñaar la jaamu yàlla mooy lii la yàlla digal mu war la ci yow nga di ko def booba yaa ngi jaamu yàlla topp yàlla nag mooy lépp boo ko boolee la war sa diggante yow ak la war diggante nit ka loolu lépp boo ko boolee nag loolu mooy topp yàlla jaamu yàlla nag mooy julli gaag woor gaag loolu topp yàlla nag mooy sa digganteeg nit ñaar sa digganteeg ba ci bàyyi ma yi sax na ko yàlla bëggee boo ko defee ñu ne kii kat mi nga koy topp yàlla la mooy topp na ndigalal yàlla ci gib ñaari baat yooyu dañ koy boole léeg-léeg jaamu yàlla ak topp yàlla nañ koy xool bu baax ñuy xool bu baax ñu xam ne yàlla borom bi subhanahu wa taala moom du jeexle dara te soxlaa lu ñu dara bu nu yaakaar ne bu nu jaamoo yàlla moom lañ ko defal déedéet ghaniyun anil alamin moom yàlla soxlawut ci ñun lenn loo xam ne nii loola dañ ko koy defal déedéet boo ko boo demee ci sikaat yi Serigne Touba wax na ko ci tasawudu sikaat nee na moom lu mu bëggal boppam moo koy defal boppam boo demee ci alquran mu ne wa innama amruhu isa arada sayan an yaquda lahu kun fa yaqul jaamu yàlla nag kii tàmbali war na caa sonn lool ka dem ba ca kawit war na caa gën a sonn ndax ki nga xam ne dangaa dem ba ca jeexital ba ca njobaxtal la yow boo xefee rek tuutee moo lay mën a daal ki nekk ci buxutal bi am na ko mu jàpp waaye ki nga xam ne dafa dem ba gisee ca carya kooka bu xefee rek du daanoo ca suuf la jëm wala iyaasu billah kon mbokk yi laa taqnutu min rahmatillah bu nu dem mukk ba yaag naago ne yàlla mënatuñoo jégal yàlla lépp la mën a jéggale maadaama ak jaam nga yàlla mën na laa jéggal lépp maadaama lu nit yore yàlla mën na la koo jox ndax yàlla borom bi subhanahu wa taala mooy joxe mooy maye bu àdduna bépp àndam toppandoo yàlla comme nii ñu def ci koor gi du dolli yàlla dara ñun doomu lay doon waaye suñu ànd ñun ñëppit mooy yàlla adduna bépp ànd mooy yàlla du wàññi ci nguuram gi dara dara dara dara nee nañ këma jëkk a bind ba ci këma mujj mujj a bind suñu taxawal ku nekk laaj ma nee na ku nekk dinaa yëkkati jox la te li nekk ci man du jeex comme ëpp sa li mu mën a wàññi ci géej nee na loolu dong lay wàññeeku ci man ndax pusa boo ko tubban ci géej yëkkat ki dina ci mën a wàññi dara ca dox ma kon nañu xam ne yàlla borom bi subhanahu wa taala moo yore lépp te it boo toog woo ko mu gis la yàlla boo defee bàkkaar ci biir nit ñi nga wéet ci ruq jéggulu ko yàlla borom bi wa amma man taaba wa amana wa amila saalihan saa soo tuubee nga gëm yàlla wëlbatiku nga teg ca jëglew fa innahu yatuubu ila allahi mataaba yàlla nanu borom bi subhanahu wa taala jéggal yàlla nanu yàlla taxawu yàlla nanu yàlla suturaal yàlla nanu yàlla may wërsëg woo xam ne nii gàcceeg laaj dina jóge ci ñun wa axiru daawana an alhamdulillah